taaru senegal la ko tuddee taaru Sénégal nag bu ñu ko waxee muy émission bu xam ne dañ ko jagleel lépp loo xam ne mën na defar réew mi wala lépp loo xam ne rek bu ñu ko waxtaanee euh, mu mën a ñu ne nañu ko waxtaane bi yoon nag nekk ñaareelu numéro ñu fas yéene ko ànd ak yéen Sénégal yàgg naa taaru tey nag euh, suñuy gan bokk na ci euh, ki nga xam ne nag moo di soxna Maguette Mbacké dinañu ànd ak moom ci bile jotaay waaye itam ñu ànd ak ki xam ne nag moo di Mahmadan Tall waaye tamit dinañu ak ki nga xam ne nag moo di Assane Thiam yaakaar naa noonu la dinañu àndal moom ci bile jotaay jotaay bi tamit du ci wéet na ma ci ànd ak euh, soxna Astou la moom mi nga xam ne nag Euh, moo nekk ci rédaction bi moom ngeen di gis noonu mu def jaxas euh, bi euh, xam naa dinañ dugg ci thème bi nga xam ne moom lañu ñu tànn te seeni ko waxtaane muy tey ñu waxtaane li nga xam ne nag moo di yàqu-yàqu di yi muy dégradation des mœurs ci tubaab Sénégal xam nañ ne léegi jikko yi tàmbali na di yàqu loole nag ñu mel ni ñun wala sax du ñu fay nekk ay donneur de waaye lépp loo xam ne rek bu ñu ko waxtaanee ku ci nekk mën cee am njëriñ loolee tax a jóg euh, bi émission nga xam ne taaru senegal lañu ko tuddee Astou Sylla asalaamaaleykum maa ngi leen nii moo bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci taaru Sénégal après nga wax ma jaxas bi lu ko waral. ok thème d'actualité la bu nga xam ne Sénégal Sénégal daanaka ñu bëri ñu ngi koy waxtaanee eh, njaxas bi koor gi jub si la wala nu demee loolu la nga ko ko waaw na en tout cas dinañu dellu ci seen jàppal mbow dinañ ca delluwaat waxtaan moom ci koor gi am na lu ñu waxoon daaw dinañ ko démarré ci kàttanu yàlla soxna Maguette Mbacke itam moom dañuy gunge ci bile jotaay bi mooy soxna Maguette Mbacke moom itam mu nekk jigéen bu baax soxna Maguette maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo bu baax 24actu point com. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah opportunity ci émission comme que ak si la waxee rek Sénégal moom yàgg naa taaru moom. alors Sénégal yàgg naa taaru ma jox ki nga xam ne nag euh, ginnaaw damaa dem gauche damay ñëwaat fii euh, mu daal di jox ki nga xam ne nag moo di Assane Dia mu nuyoo ak ñu koy seetaan Assane bisimilah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. mbokki Touba ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di nuyu bu baax site bi di 24 mm-hmm. ci émission bi nga xam ne tey ci mm-hmm. ne moo am ci réew mi mm-hmm. jërëjëf ñu ngi lay sant baax nuyoo bi am na solo ma jàkkaarloo moom muy laay wax sax maa ngi lay ziar bu baax ma bàyyi la nga nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñoo ñëpp di ñaanal ñëpp rek ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te waaw di xam ni di di ñaanal mboolem ku nekk ci biir eh, site bi rek ak ñi ko jiite ñëpp di wax ni rek Sénégal moom yàgg naa taaru mooy eh, Sénégal moom mooy mooy réew moo xam ne taar ak teraanga rek lañ xam waaw macha allah waaw kon yàlla na yàgg yàlla na yàgg waaw incha allah. yaakaar naa léegi sax nit ñi amatuñ jot booy jënd sax fàcc chargeur ngay jënd chargeur bu gën a gaaw ah. mhm. kon nag on va ñu dem ah, très rapidement ci tambi asu tey bu ñu nee Sénégal yàqu-yàqu jikko fan ne moom la thème bu am am nasıl bir limanını bunu yaptığım liman ülke konusu çıkıyor. Mesela ben de beraber bir limanı. İstanbul'da bir limanı var. Nasıl bir limanı? Şimdi bir yana göre artık bir yöne içinde bir şey. Biz bütün bir bir bir yana göre. Mesela bir yana göre dersen aldık. Bir yana göre dersen aldık. Bu da bak yana bazen basit dedi. Ama bir yana bakın ne var bir yana bakın bir yana bir konu yakıyor. Bir yana bakın bir yana. Bakın bir yana içinde bir yana bir yana bir konu yakıyor. alors sëñ Mouhamadou yow ku jaxasoo nit ñi nga as wax na ni jikko yu yàqu yi daanaka mën naa tàmbalee ci kër yi lan mooy waaw euh, sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar bu baax waa jikko yi boo de xool dëkk bi dama koy tàmbalee xam naa bu dee boo nee Sénégal yaatu na fi trop trop foo dugg rek ma nga fa dugg na ci kër yi dugg na ci société yi dugg na fu waaye jikko yi yàqu yi buñ ko euh, buñ ko dindiwul dana jur lu musiba moo xam ne du baax tamit yu commencé ci borom kër yi. waaw ndax borom kër waaw borom kër moo war a teel a euh, traité ak njabootam tàggat leen ci lu baax waaw borom kër ndax dangay xool tey jii kër yi boo duggee ci kër yi da ngay xale boo xamante nii amagul sax fukki at teel a ñeme teel a xam yu bon te yàlla dogal na dem na ba sax da ngay gis kër boo xam ne day jëndal sax doomam portable mu toom am fukki at mu mu xam mu xam lépp lu ne ci internet teel xam yu bari bagage yooyu nga xamante ni moom lu ne ngi ci. waa xam nga xam nga li ko waral mooy euh, euh, Sénégal dañoo bàyyi jàng. xale yi gis nga fi mu nekk nii boo bàyyee sa kër boo boo tëyee sa kër dem jël xale yi nga yóbbu leen ci école bu ñu jàngi buñ jàngee ci buñ jàngee école ba ñu dem daara ah dañuy xam dara dañ fay nekk man a man di yaru ñu leen di yar yarub diine di leen di leen tàggat ci lu baax ah bu ko defee borom kër bi da ngay mën a nekk ci sa liggéey nekk sa activité du la yàqal dara waaye boo xoolee jamono ji léegi da ngay dajale sa njaboot ci sa biir kër bàyyi leen fi nga xam ne am na ñoo xam ne seen sax ah, maanaam ragal fere tax na du duñ yóbbu seen i doom ay école ñu jàng soxna Maguette Mbacké Maguette wax nañu lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu borom kër yi nee nañu ci lay yàqoo mais nag ku ne kër na jigéen yi parce que yaakaar naa ne góor ñi léegi amatuñ jot bu ñu xëyee dem nañu liggéey yi eh. jigéen ñi ñooy des ci kër gi est-ce que jigéen ñi amuñu ci part de responsabilité avant ñuy génn ci biti que man li wax sax ne borom kër mhm. man dama koy xaw a dàq si benn côté. àndoo ci ah. parce que man li ma gis ne moo indi yàq te jamono mhm. mooy yàlla ñi ma yàlla yàlla ñoo parce que da gis xale bi ku ko xam ne amagul sax quinze ans yu mat nga yóbbu ko mu sëy mhm. kooku yow fi nga ko war a yaree soo ko yóbbu mu sëy mu am doom kooku dafa mën a yar doom kooku mënul yar kenn moo gis na kon xale yi teel a moo tax léegi mëntu ñoo yar xale parce que ki ngay yar ki nga boot sax da leen a

doom ba mu màgg jigéen ba mu toll benn âge nga yëpp mu sëy pour man daal la ci lay gën a mën a yore d'accord d'accord maa mu euh, euh, mel ni tàmbali na ah ñi tàmbali nañ ci dugg mais est gisoon ni tamit comme ni ko ñenn ñu waxee borom kër yi ñoom démissionné ñu waroon a yar léegi est-ce que ñooñu jàppoo ne ñoom li leen waroon ci seen njaboot dañ caa am luñ ca luñ ca manqué waaw jërëjëf mu mel ne la sama sëriñ doon wax rek mm-hmm. ndax liñ naan wàcc ak seel moo am ci jamono ji ci ci ci ñëpp nag ñu bari ñama ko sañ wax ndax bu ñu amee mag ñu baax am lu mel ne Serigne Touba yaakaar naa bu ñu tënkoo ci ngir yooyu rek yaakaar naa jikko yi moom toujours dafay des rek. mais est-ce tamit est-ce que jamono ji gars yi léegi ak euh, euh, réseaux sociaux yeeg yeneen ak yeneen est-ce que loolu daanaka nit ñi est tënku nañ ci. waaw ndax xam nga loola day base bu dëgër boo xam ne. Mm. buñ ca tënkoo rek. Mm. lu mën a ñëw. Mm. ndax Serigne Touba boo xoolee. jàngale na lépp waaw jàngale na lépp. wax na lépp ndax boo toogee ca Mbàkke Kajoor mm. wax ne ku fi njàngum kese andi mën ngaa dem. Mm. koo xam ne li fi man moo la fi bàyyi. Mm. nga toog boobu nag ci la amee. Euh, loolu ko suñu borom roof. nga xam ne dafa war a dugg ci jikko yi. ndax xam nga ne Serigne Touba dafa teel a xam. lii nga xam ne mooy gàllankoor nit ñi. muy jikko yi rek moo war a defar. dafa ba nga xam ne tey société bi tey fii mu agsi tey mm. nga gis jikko yi ni mu demee ñàkk a topp ñàggalam sëñ Tuubaa moom rek boo ñu doon boo ñu doon limal jikko bu yàqu ci senegal bu la gën a métti lan lay doon jikko yi ma gën a métti ci yàqu ci mooy ndaw ñi mm. mooy rawatina internet bi ñu fa mm. wuti yaakaar Mahmadan yi ma jàkkaarloo toujours dañ ciy débat lu yaatoo yaatu. Mhm. mën na ma ci seere. mën na ci seere waaw ndax man. fi mu toll nii dafay am lu ma dund loo xam ne. Mhm. ba ci njaboot yi muy samay soxna ak samay doom mhm. toujours dama leen koy wattandiku loo. ndax buñ ci sooboo rek. mënatoo leen a aar. d' accord waaw buñ ci sooboo mën na leen te mënatoo leen a aar euh, ngi dellu si yow Assou ñu gis na léegi euh, comme Assane li mu wax léegi c' est très important réseaux sociaux yi. parce que doomu aadama bi léegi boo tëjee sa doom mën nga ko tëj ne ah doo génn kër mais la ngay bañ mu génn defi ko mën naa toog digg ca néegam yor téléphone portable am la hmm. nga def. mais parce que waxuñu rek ci yow. ñu ngi loolu la loolu mooy problème bi. waxuñu rek ci yow parce que yow. su la neex dugg su la neex génn. parce que ñu bëgg a baax. ñu ngi baax ñu bëgg ci biir. ñu bëgg ñu bëgg lu bon tamit mën nañ cee bone. kon kenn ku ci nekk. war naa nga defaraat sa jikko ba xamante ni yow kat da nga ne man kat lii am naa lu muy rus am naa lu muy jomb am naa lu muy seet. mais bu fekkente ne yow tamit say parents mën ngaa fekk ne la yow bul génn ci mbedd bi ndax nga nekk ci kër gi sa téléphone. dugg yi du ba neex nga seetaan tamit. te mën nañu sa parents yi ñu gën mu ngi mu ngi damay desiwaat bu baax ci côté parents yi parce que parfois tamit mën naa ànd mën naa dàq borom kër yi ba ñu ànd ak ñoom da man parfois mën naa ànd ak ñoom parce que li ma la fi misaalee rek mooy gis ngeen kër yi nga xam ne ni que mën na nekk këram wala yaa ci Ndiaye mën naa nekk këram bu ñu jëkkëram moom moo yor kàddoom ngeen sama doom yow bul def lii doo tekki sa tànk doo tekki sa tànk mais li nga xamante ne mooy soxna si da ngay gis soxna soo xamante dinaan ko ah moom bi dafa tiital sama doom ji li nga xamante ne moom la dèjà ko guddee wala genre mel noonu nii dafa tiital sama doom ji xoolal li mu koy jural xoolal li mu koy faral maanaam dinaa bu ko defee moom dafay dem ba wax bi daf koy déranger bu ko defee day jël doom bi def bi loolu naan bërëbal dafay bërëbal yaa ngi bërëbal donc le sànq dafa dugg bërëbal moom liñ naan génn di sa kilifa voilà sëñ Mamadou ñu avancé léegi wax ci lépp loo xam ne jëm na ci jikko yi gis nañ ne tamit léegi Sénégal yàqu na mm. xale yu ndaw mm. Mm. ñoo xam ne dañuy dem xam ci loolu waaw xam nga li ma loolu sànq ni bi may ñëw rek maa ngi ci def xalaat euh, am benn waay bi maanaam ñu ci wax li ma gën a yéem ci dëkk bi mooy day gis xale bu ndaw boo xam ne doo xam lu muy liggéey xamoo ci lu mu ne xamoo fu muy xëy day xëy rek sol mbubam ah sole daal di war a dëkk bi dugg ci marché bi dégg nga maanaam ami soxla ba koo faj te maanaam fi ne mënoo koo ke waaw waaw waaw kooku est-ce que sax man naa toog ah. dañ koy waaw dégg nga fi sax toog muy dox ah mais yooyu jikko yu yàq yooyu kañ lay jóg Sénégal léegi xale yu ndaw yoo xam ne dañ fee nekk sëñ bi ah maanaam yow yow koo xam ne waxuma la dem mais ñàkk teggin gi ci ci gone yi léegi xale yu ndaw fii ngay gis ñu yor ay sareet ci fii di di di fël ay mag di nekk maas di saagay ndey oto yi da gis da dugg ci oto nii xale bu ndaw di saaga ay mag ne ci biir sa ñàkk yar googu ñàkk yar googu mën naa indi jafe-jafe boo xam ne ci réew mi mar ndax xale bu amul yar xam nga dañ maanaam maanaam maanaam boo xoolee ay teggin mooy mooy mooy mooy mooy cëslaayu diine teggin ah, waaw loolu moom mar hmm. na fi hmm. te nag gis nga fi mu nekk nii daa jot sëkk nag liggéey bi liggéey Touba dafa war a am ñu war a taxawu lool. man nee naa barke sëñ Touba bu ñu joxoon sëñ sa ndégal dëkk bi ba tey lépp sotti na maa la wax lii dafa am yoo dëkk dëkk bi dafa am ñu ko war a saytu yi fi mu ne doy na waar gis nga dëkk bii lu ne ngi fi. xam nga xam nga xam nga safinatu amaan safinatu amaan dama dama duma xuus foofu waaye li wér mooy lu wér mooy dafa am loo xam ne boo doxee tuuti safinatu amaan am na liggéey dugal marché bii rek Touba bu fekkente ni sëñ sëñ Touba sëñ Touba euh, li mu li mu waxoon ci faw sëy ni ci Touba dañ ko yëpp yow yow sëñ Touba moom waxoon na aar na dëkk bi hmm? waaye li nga xamante ni yàlla dogal na dëkk bi mi ngi ñi fi nekk ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo dëng waaye dëkk bi moom ni mel mel na ko baax na ba noppi waaye boo dee xool li ñuy tere lépp lu ñuy tere mi ngi ci dëkk dugal marché bi yaa ngi gis li nga xamante ni dañ ko waroon suutaraal di ko denc ci biir euh, bataay yi jigéen ñi ñu ngi koy niwi sadi bagage yooyu ñu ngi koy weer ci bi ñu koy gis loolu baaxul dañu waxante dëgg te yooyu yàqu-yàqu la euh, yaatu mais bu amee ci corom comme ni ñu ko waxee du ko fa yóbbu mën ko yóbbu ci appartement ba ñu nekk ci la leen neex buñ paree def loolu responsabilité ku jigéen ci la wala ku góor ki wala parent waaw loolu ba tey day dellusi rek ci fi ñu tàmbalee woon ci sunu ay kaar mm. ndax loolu dellusi rek liñ naan mm. wala bi dañ wax weñ mm. gaa nga bañee ca mbanjaxaar bi ndax loolu lépp rek ci kilifa yi la ndax yar bi daal moom il faut rek ñu ñu ñu posé waat ko teg ko ci taabal ci gën a yaraat tey am na ñoo xam ne loolu ñemewuñ ko. Mm-hmm. ndax fañ leen jaare la mm-hmm. te loolu nga wax dafay bari. Mm-hmm. man loolu am na sama benn xarit bu ma ci doon waxtaanal mu ma koy wax. Hmm. waaye man musuma woon a jàpp ne loolu am na. am na am na waaye bu ma déggee ñu ne am na fi bari na fi man dafa maa jaaxal. Hmm. waaw dafa maa jaaxal trop. Hmm. te loolu tamit luñ war a mën a bàyyiwaat xel la. yaraan njaboot gi xoolaat leen bu baax. tey la suñu xaadim naar waxoon rek. ndax bu ñu noppalee fii du ñu noppal fële. Ah. waaw te lii fi mu toll nii doy na waar. doy na waar te ëpp na fi mu toll. ok euh, Maguette ba léegi responsabilité bi nga jàpp ne kan la ci biir fànn boobu jigéen ñi ne jigéen ñi ñoo am repère fu ñuy xool wala góor ñi ñooy yàq jigéen ñi. ah ci. Hmm. comment ko hmm. gaaw hmm. parce que yow soo fekk su nekkee ne yow mii nit ki dangaa dangaa takk takk yaayam indi ko ci kër gi ba noppi yow xale bu góor bi ngay gis sa papa di toroxal sa yaay si kanamam di ko dóor di ko saaga di ko wax yenn yoo xam ne dangay gis ni lii nii kon nga kon yaru amul parce que dafa mel ni kon saaga boobu noonu dafa nekk loo xam ne dafa mm-hmm. sa sa yow sa pàcc ngay ñu saaga sa yaay ko lu ma neex laay def naa génn sama appartement boobu. Mm-hmm. di faj jigéen faj sama sani. Mm-hmm. loolu mooy tax loolu damay daam dama ragal ne. yéen bi waxoon dafa ñëw rek. aaxiru zamaan da ngay gis ñuy def indi ay immeuble. xale jigéen ñi di woo góor ñi di sàkku. comme li ko kii wax lijjanti bi. alors moom léegi tamit toll nañ ne kenn du ko liggéey parce dafa mel day bëgg a dëgg nag. alors soo gisee nit gën a sonn ñoo a ñàkk mm. ñii liggéey maçon xam ne moo gën a métti mm. malheur ñoo gën a ñàkk waaye nga gis ñoo xam noobul leen ah. soo gis yu liggéeyuñ dara ñoo ëpp alal mm. moo tax léegi ñu sukkandikoon boo xam ne sans loi naa ne loolu lu doy bi ñu avancé tuuti ci thème bi parce que yaakaar naa ni euh, thème bi yaatu na ma fàttali ko thème bi mooy euh, yàqu-yàqu ñu koy dégradation des mœurs euh, mu ñëwaat ci loo xam ne yàq der gi nga xam ne nag moo nekk ci réew mi nga xam ne daanaka Sénégal léegi kenn mënatu tax lu baax koo da boo tëddee ne daa def sëñ bi léegi jumaa sax ku fa dem ñun da dóor léegi. Hmm. jumaa billaay la si booy julli ji tegaleel léegi di julli ji ñun day dóor. <laughs> yàlla kenn mënu koo dóor. waaw xoolal dafa mel ni sax suñ borom dafa yéeme gis nga sànq bi may ñëw. am na ko ma ku ma mais am na koo xam ne dañuy waxtaan ma ni ko waa saa ci loo ne yaa ngi ci bagage dëkk nag ana xaalis bi mu ni ma xaalis bi daal saa dëkk bi moom da liggéeyante rek ma ni ko waa saa ah rek mu ni ma mu ni ma mu ni ma xaalis daal boo bëggee dégg dégg koo gis ñun la am na ko ah ay tappale la. ma ne ko déet saa lu tax am ñu liggéey di mu ni ma lii maa la ko wax xaalis ku ko am daa tappale wala loolu léegi buñ ko. yàq na yàq na yàq na te kooku kooku kooku bu bu ku ko déglu ku ko déglu rek noonu ngay def ci yooyu ngay dox te moom fi ne sànq barki sëñ Touba laa wax sànq dañoo waxtaan mu ni dañu dañoo àndi dox mu ni maa ngi nii damaa tëdd nelaw bi damaa yeewu maa ngi nii damay lijjanti ji rek ci pexe laa nekk kuleta kwamba a tax waaw ah ko léegi de wax naa ko léegi de soxna Maguette génn ma ci ah, waaw papa yi ba kii wax na la ñoom moom dañuy génn di dem ma wax na ko nee mm. na koo xam ne dafay tukki moom mën naa toog deux bi ñëw këram mm. est-ce que mën naa régler loolu mais xam nga parent parent mag ci la bokk wala mm. non ba ngeen waxoo parent de déet waxoo ah. parent <laughs> ah waaw baax na kon noonu daal soxna Maguette dama yaakaar ne ah, waaw génne na man pour que mën nañu sant bi ak ak changement bi muy yor. yow doo doo doo doo ko doo ko lijjanti doo ko ci ci lan lay xëy ci lan lay gontu. muy daal yooyu da nga yaakaar sa bopp daal léegi moo tëye doo ci moom. xam daal moom lañ daal moom moom échange bi moom yor naa nga ma ci naa nga ma ci naa nga ma ci yor échange. voilà bu ñu la waxoon temps bi tamit li nga wax ci ñun ñi nga xamante ni ku jur la ñu ne day doo. day doo day doo. sama ngeen échange bi ñoo xamante ni. voilà dóor ñu fay wuñu àtte wuñu fay. ñoom fañ tëdd la ñuy tëdd. ci biir bi la ñuy def duñ bëgg kenn amal leen dara. te yow nag booy xëy bi xëyee ko wàcc sonn. ñu naan day dóor. ok Sénégal yàlla sax day doo pour réew bu ñu tollee ba réew moo xam ne c'est-à-dire yow booy liggéey nit ki ña ngay xool nañu yàqee sa liggéey ña ngay xool nuñ la waxalee lu ñaaw ak di jiim nit ki loo xam ne def ko ak di waxal lu ñaaw lu ñu xam rek teg ko ci deru nit yaakaar naa senegal war naa mën a romb foofu bu ñu nee Sénégal ci jikko yi la a tàmbalee hmm. Sénégal war naa hmm. ndax tey boo xoolee Sénégal fi toll tey hmm. war nañoo defaraat jikko yu bu baax ndax li fi ëpp tey. Hmm. ay mag lañ. Hmm. retraité nañ te ndaw ñu rek lañ yaakaar. Hmm. te ndaw ñooñu nag gannaaw ñoom lañ yaakaar tey ak fi Sénégal toll ak li fi war a feeñ tey ëllëg. ñu dégg nañuy wax pétrole beeg yu baree bare. mais yooyu bu fekkee ne ndaw ñi defaruñ seen i jikko. loolu kañ lañ mën a jariñoo. loolu kon dafa jot nag lii ngeen def nii tey def ay débat yoo xam ne. dañ koy mën a partage di ci waxtaan. ndaw ñi mën a dellusiwaat da ciy am solo lool. danaa dellusiwaat ci li Soxna Mbacke wax léegi. mooy. wàllu maye yu teel yi hmm. man loolu mosuma cee ànd hmm. ndax damaa yor benn doom bu ndaw hmm. waaye toujours damay damay damay xoddiku rek dama naan leen bàyyi leen ci sama doom ndax li mu wax li mu wax am important la te loolu war nañ koy ndax xale bu fekkee da nga koo teel a maye mu te yar ba nga waroon a def ci moom war koo so soutenir ko war a am ay idées yoo def ci moom boo ko demee mën a to mu dem teel a dugg ci jur ay doom. Mm. kon kooku du xam. Ah, ñu daal di ami sët fii. yooyu il faut que ci. Mm-hmm. dañu daal di ami sët fii sëñ bi. bopp ci anam boobu yaraan njaboot gi. Mm-hmm. téye leen suñu mm-hmm. ndax yooyu moo fi manqué de boo gisee jikko yi yàqu yëpp. daw responsabilité rek. kër yi daal maanaam fi mu toll nii jafe-jafe yu rëy moo fi nekk. ndax jafe-jafe yi mooy li wolof yi wax. weñ gaa nga bañ a ca mbàjjaxaan ndax kilifa yi ñoo jëlatul seen responsabilité. te loolu nag bu bëggee nag société bi dox. liñ naan day tàmbalee fu mu war a tàmbalee rek génn. génn mm. euh, nga dikkal ma rek ci yàq der gi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal damay insister parce que euh, loolu dafa dafa dafa dafa dafa doy waar ci réew. waaw yàqante der bi fi nekk comme ni ma wax léegi boo wax leen nit lu baax ñu ne day dóor boo toogee sa kër ñu ne nangam nangam boo maanoo ñu ne nangam nangam. Sénégal dafa mel daal mm. lu baax bëggatuñu ko. Mm. xam nga Sénégal dafa am lu ñu leen xamee. te loolu du fi mas a jóg. bu jikko yu baaxee boo gisee loolu nga daanaka li ko bëgg a mm. mooy jikko yu yàqu yi. ndax tey jii nit ñi buñ ñu gëmee seen bopp. Mm. tey boo toogee ñi nga xam ne ay chef d'entreprise lañ. Mm. di liggéey gëm seen bopp ba tabax fi immeuble yi. soo waxtaanee ñoom rek. da ngay ci yàlla suñu borom. ndax fa ñu nekk ak ndaw ñi lii ñu fa wuti. ndax wax nañ ko ci wax ji léegi. xale bu ndaw sëñ bi ñàkk gëm sa bopp. di dox ci anam boo xam ne yor benn téléphone bu cher. te tey boo ko bëggoon a liggéeyloo. mu tàmbali di la énervé loo. bu ngeen àndee liggéey sax yow da ngay ñu gëm ay lijjanti ak yor ay téléphone yooyu mooy li nga bi moo fi nekk nag ba nga xam ne mm. a ay dara yooyu waaye buñ gëmoon suñu bopp mm. jikko yi defar mm. bu boobaa yooyu yëpp dara ko mm-hmm. mu wax lu am solo muy yi dikkaat na ci bu gën a yaatu mm-hmm. parce que yaakaar naa buñ ne jikko yàqu yi rek euh, bari na merci mm-hmm. bëggoon que ni euh, Sénégal euh, nga xam ne daanaka li ma sama jàngal sama benn jàngalekat doon wax ne Sénégal tant que ñi ngi lay yërëm rek nga nekk seen xarit mais boo tàmbalee soxla ko ñu mbir am. am na rëdd. kon Afrique fi ñu jëm. loolu moom. moo nekk ci ñoom. Hmm. buñ sañoon daal chaque jour yow moom yow moom yaa leen di ñee mais ñoom buñ la mës a ñee loolu nag bu fekkente mm. mm. mm. ni ba nga xamante euh, di wax yi bu mel ni ci yi ñoom wala dem na ba ci mbàkketu baay wala yenn tataay sax

àdduna mën na leen dara. te ngi gën xale du du damaa dugg oto Mbacke Touba. ñu tolloog euh, xayra. Euh, xale bi xale bi euh, maam kii am ku war a wàcc. maam xale bi xamul lu mu wax. mayal nday client bi mu wàcc. léegi moom saaga na client bi. moo xool xeeti waxin yooyu mayal nday nday nangam. maanaam yooyu defe nañ ni wax jooju fi mu ne boo ko waxee sax pour ñoom saaga woo. léegi mayal day client bi mu wàcc waayoo léegi kooku saag nga client bi fa saa si laa ko ni yow da ku réew nga ku yara diku nga muy tontonte ak man ma xam ne te kooku xam nga ni kooku waaw waaw ci loolu lañ war a wax loolu lañu war a wax Touba borom bi mu koy sànci caaxaan ak saaga ak fon dëkk taxulul mu di ko sànci bañ na ko ba njabootam gii fi nekkoon boo xoolee ku ci mel ni sëñ Moustapha ñu ba ci ba ci sëñ Fallou ba ci sëñ Abdoulaye ku ci nekk dañ la demal dànd barab bi nangam mètre nga dem dëkk fa. sëñ Fallou nga woon nit ñi sëñ Mourou Moustapha Tindoo di sëñ Abdoulaye Belal sëñ Abdou Khadir euh, Baxdaat ñoom ñëpp sëñ léegi ñëpp kenn ñëwu ci woon dëkk sëriñ bi. fii ñun nag dañoo am fit ñame dëkk tu Touba gii sëñ Touba magum jëm mu toll ni sëñ Touba liggéey liggéeyam bu rëy bii ba toll ni dëkk bu toll ni Touba nga. sëñ nga li ma gën a bañ nag mooy sëñ bi. caleçon yu xorox yi ci dëkk bi nañ ci wax maanaam sëñ bi da ngay gis koo xam ne day futti tubéyam ba ci xottaar mu mu yamale ko fa maanaam sëñ bi da boo boo boo toppee ci ginnaawam yow bi lee doo bëgg lu toog suuf di jooy rek maanaam man fi ne bari na li ma gën a mett ci dëkk bi moom moom bu ma doon wax li ma gën a métti gën a woon mooy mooy Chris Koros loolu moom mett na ma torop métti mm. na ma torop dafa dafa dafa ñaaw maanaam toppandoo la tey xam nga loolu civilisation euh, xoolal soxna yi sëñ bi ni nii ñu def nii sol lu yiw mhm. maam loolu man bu ma doon tàkk man ñii laay wut tàkk de du ma takk ñii di soli guddi de waaw. Euh, dañu nekk dëkk boo xam ne mhm. li ñuy def duñu ko xam duñu xam sax cosaan bi. li ñuy wax le euh, criss cross yi faral di def ak euh, xeetu cross cest à yooyu boo xoolee américains yi bu njëkk yi nga xam ne dañ leen daan tëj prison buñ leen tëjaan ngir bañ ñu xaru seeni ceinture dañ koy nangu léegi nag ñoo ñu tubéy yee daan wàccee ñoo ah. ñoo gars yi moom dañ koy royee ah, jàpp ne xëy na loolu mooy lu baax la ah. donc loolu mu nekk lu am loo xam ne vraiment lu baax la ci société bi sunu màggee loolu lépp dafay dugg tamit ci bi dëgg la mm-hmm. waaw mooy ñàkk xam rek ak ñàkk jàng man daal damaa gis ne lépp ñàkk jàng la rek mm-hmm. ndax doom soo ko juree jàngaloo ko xamul dara mm-hmm. yow mi yaayam jàngoo papaam jàngul kooku kan moo koy xamal léegi nag loolu moo tax na comme que yow ñoom dañoo jàpp comme yow sa doom su génnee crise nga ne ko yii sama doom cinq cinq mu reetaan nga ne ko yaa ngi téppi dëkk ba yàlla bu la xale jigéen di xool moom da defee loolu moo moo baax mu génn te fekk ruggi moom dëkk bi de li a a madame xam euh, ma la waxoon rek. Mhm. lu ñaaw lu bari ci kër yi lu bari ci dëkk bi loo xamante sax dem na ba sax taalibe yi ak ñàkku taalibe yi nga xam ne da ngay ab sëriñ nga wax ca lu ñaaw te dara leeru la ci da xool léegi da ngay da ngay a léegi. comme réseaux sociaux yi day dem na ba euh, technologique avancé na lu ne nga mën a def nit da ngay dem jël nit yàqu kàddoom wax ci def dugal ci leneen def ko nu ñaaw wala nit ki nga fexe ba génnee benn image ci moom wala benn benn ojo léegi xoolal kooku lan ko xoolal waxuma la àdduna di mais ñaata nit nga yàq kooku dafa waroon a nekk defar awe niiram maanaam di am ay njaboot am ay soxna mais kooku ñaata nit koy daw ci àdduna euh, yàqal euh, ndaw mooy jox nit ñi rek ci côté boobu muy àdduna boo xasee ba xam ne yow mënoo neex ñëpp rek. da xool ñi nga xam ne mën nga ànd ñoom. nga xam ne yow leer na ñi bëgguñu la bu leen jege. parce que dëkk bi dëkk bi moo tax ko. c'est vrai. c'est nit ku nit ku nit ku la bëggul di la wër. moytu ko. du dëgg. waaw voilà nga rebondir foofu rek. waaw voilà. nga nga sànq di la romb rek. sama sëriñ mm. ci laa ko nangoo mm. mu wax ni moom li ko li ko li ko li ko li ko li tax mu mucc ci lu bari mm. mooy dafa xamoon boppam xam ñi ko wër maanaam boo xam ne sa bopp yow yaay kan xam ñi la wër ñooy ñan bu boobaa da nga mën a mucc ndax fi mu toll nii nag nañ xam ne nag yàlla suñu borom moo sàkke noonu àdduna te nag boo defee ne Serigne Touba rek li mu jàngale nga xam ne yow xam sa bopp d'abord njëkk xam nag ñi la wër da nga mën a mucc ci loolu bu ko defee nag mm-hmm. soxna Maguette nangoo waan naa ci moom ci li wax léegi ndax it mm. wax ji wax ji ñàkk jàng la mm-hmm. ñàkk jàng mm-hmm. ñun mooy suñu problème mm-hmm. ndax nit boo ko bëggee yar yow il faut que tamit nga am tuuti xam-xam boo xam ne yow tamit danga ko ci yar mais wayjur bi nga xam ne moo war a loo xam ne am na ko tuuti ci xam-xam bu boobaa du mën a waaw bu ko defee nag beneen ba ca dolli li ci ñambaas mooy jikko yi tamit fi mu toll rek ba tey ndax fi mu toll weeru koor gii ñu si te bari na ci ñoo ci wax Mm-hmm. ñu naan koor gi nangam nangam nangam nangam mm-hmm. waaye na xam ne koor gi weeru jàmm yàlla la mm-hmm. waaw bu ko defee bu ñu ko gëmee noonu rek te xam nañ suñu jàmbar ji da ko daan tàgg ci bu tollee fii loo ko laaj mu jox la ko su demee ba toll fii ci njeexantal la mun ñu def ak jàmbar jàggan bu mag te di dem <laughs> kon loolu tamit jikko yooyu tamit war nañu koo indiwaat foofu waaye naan weer wi nii nangam nangam yooyu ah, euh, c'est xam naa nag euh, waxtu bi daanaka jeex na euh, jotaay bi neex na nga xam naa ne thème la boo xam ne bu ñu ko toppoon mën nañ ko développé fii ba ginnaaw heure bu nekk rek. parce que thème bi moo toll noonu. mais xam naa dinañu am temps euh, ngir dellu si parce que taaru Sénégal moom. lépp loo xam ne day taaral Sénégal wala lépp loo xam ne bu ñu ko waxtaanee xëy na euh, solution mën ci am euh, loolu rek moo tax a bi la jotaay. nga may ma rek ci 30 secondes rek parce que jotaay bi am na solo. lan nga jàpp ne jikko yàqu yi lan nañ jàpp ne maanaam mooy solution bi bu ñu ko defee xëy na saafara dina mën a am nànk nànk ba muy jeex. waaw jikko yàqu yi nañ na nit ñi nañ nañ nañ xam ne première mooy nañ nañ fonk jaamu yàlla jaamu yàlla mooy première li nga xam ne moo mën a dimbali nit ki mu jéem a fonk jaamu yàlla ba pare fonk ay woy juram góorgóorlu di liggéey te bañ a toog rek defe dañ koy dimbali nay liggéey nit ki nay jóg nay jóg di tëst si moo xam ci lu mën a nekk na doon liggéey nay jóg di tester muy góor di jigéen buñ ko defee ba pare respect joxon joxante respe respect bi nag mu ngi tàmbali ci biir kër yi nañ jo nañ joxante respe te bàyyi xeebante bi xeebante dana war a waral nit ki euh, mu dem di dugg ci naka su dul noonu ndax boo bokkee ak nit kër euh, kii euh, rakk da nga gis rakk tane mag ci biir kër rakk tane ci biir kër ñu jël ma rakk teg ko ci kaw mag. ñoo mm-hmm. indi jafe-jafe yu bari toog eh, loolu dañuy jékki-jékki ñun la saa yi ñoom jël sa bagage yi dégg ngay xeen xeeni fekk yoote yow maanaam sëñ bi te yow yaa war a diir yaa wax yaa war a wax eh? mais lu ko waral alal lu ko waral xaalis mm, xaalis yàq na réew mi yàq na jikko yi mm, bi ko ji yi koy yàq daal boo ko bëggee dégg diggante base bi mooy xaalis. Mm, waaw waaw waaw waaw ñoo ngi jégalu bu baax euh, di rafet di lu maanaam émission bi. taaru Sénégal kon te xam ni na ko ñëpp seetaan ndax émission la boo xamante ni euh, ay borom xam-xam yu bari dinañ fi ñëw incha allah dinañ leen seetaan ci internet bi waaw waaw dinañ jël si ndax man wax dëgg yàlla euh, fii rafetlu naa ko neex na ma trop yàlla dogal na nag man jànkatu xasida la waaye waaye waaye nag. Euh, waaw ndeysaan waaw waaw ndax jànkatu xasida ak borom xam-xam ñëpp ci am wàll ci émission bi waaw ndeysaan bisimilah. waaw El Hadj Ousseynou man moom damaa ragal ne instant bii nii li tax jikko yi yàqu moom. mais xam nga amul a def instant bi tiit. tiit lu tax ñu war a mooy dañoo war a xam ne instant bi yonent bi waxoon ex nañ ci mm-hmm. parce que yonent bi dafa waxoon nag bés bi ngeen demee ba toll ci jamono mm-hmm. ah, gone yi mañ yërëmtuñ gone yi mm-hmm. gone yi amatuñ kees ci mañ ñi bàyyiwul ngeen xam ne àdduna yàqu na àdduna nga waaye tukki te dama kon nag su ma gisee ne jamono ji moom bi la yonent bi waxoon ci message yëpp ex nañ kon li li solution mooy ña baaxoon ñu góorlu jaamu yàlla te xam ne soreetul mm. ñi nga xam ne timit moom ñu ngi si safaan bi mm. dañuy leen ñaanal rek yàlla gindi leen mm. ñu delluwaat sa la gën te nag bari na si ñoo xam ne lu tax ñuy gën a découragé comme que nit ki soo gisee muy naa nga ne ko yow soo naanee danga soo deewee sawara nga jëm kooku day bañ li gën mooy nga woo ko ne ko ah yàlla kat wax na néeg nii góorgóorlu su ko defee moom mën naa bàyyi sax mais waxtaan kay ñu am na ñoo xam ne moom yaakaar naa dañuy gën a dawloo gone yi mhm. ndax comme que dafa sawar a sawar a sawar ñoom dañ naan ah kon kay comme que suñu dee dañ sawar nañ góorgóorlu rek ci mu neex ah Euh, waaw comme ni ko xale yoo xam loo gëmul kañ lay jeex ba joxoon la ñuy wax su doon moom yaa ndax yow da gone mu def lu ko ndak sudul noonu noonu sama yoon te li gën te yonti dafa xool ne soo gisee nit ki nekk ci loo xam ne du yoon mm-hmm. yow woo ko wax ak moom su nekkee ne mënoo lim yow mënoo mënoo koo dindi ci lu mu nekk mm-hmm. dee ko naqarlu di ko mm-hmm. ñaanal yàlla mu dindi ko ci lu nekk mais léegi defatuñ ko

Mm. xam ni suñu borom subhanahu wa taala mooy mën a xam man maa doomu aadama. ginnaaw yàlla suñu borom moom moo tëral doomu aadama yi tëral boobu ñu tëral nag. ndax da ngay foog mala yi ñoom ñu neex dañuy def. wallaay wallaay wallaay te ñu ko neexee rek ñu ko sentiree dañu dañu tëye. wallaay kon ñu tamit nee na leen suñu borom subhanahu wa taala moom laa ko tëral nag. doomu aadama yàlla daf koo jaaral suñu doomu aadama. waaw maa mën a tax leen lu bëri bëri bëri war saa jëmbale sa bopp. ndax fekkee nag nit ki war loolu bopp. amoo lay jom. la neex def la neex wax la neex jëm. da ngay kat doomu yi bëgg daal. am ci yoo

koyin mm. da to yi mun ka gaba mun gura ga haram mun ka bai zanga da yamma bidilla bi bidilla sai man da kuma ka mu ina da gaje mu ne gora ko da ba mu ko ko ko ko ken kan da mun ga ha to bi da tuwa da ya ke da mun da mun san da ko da da da don da ka da ni ku da zanga ne ayyana ina yi wa kuma mun na wani mu wasan kare ko da ku da mu biir kër gi la commencé di jëlee si mbedd bi. ndax bu fekkee ne comme par exemple da nga nekk xale bu ndaw. tey parents bàyyi la nga nekk ci benn xale bu trente ans. benn maa ngi jéggi quoi ak ñu ko war a wax yow bu premièrement rek sukkand bi moom moo di njëkk a ñëw ci dara. kon yeneen ñu mel noonu. dëgg la ko benn ñaareel ak ñetteel ak ñoom xaaral ma ñam. ñam boobu nag mooy dem ba yaay dem ba ba raw sax kàr grand yooyu. tey defoon nañ ci benn enquête asu. c'est-à-dire Sénégal dañoo dañoo dañoo négligent. maanaam day defoon nañ ci benn enquête boo xam ne fii ci dëkk bi. am na Touba gii la nekk sàngal sàng fa. secret sàng fa ñoom koy agressé nit ñi te ba léegi gënoo ko. léegi xam nañ ko dañ lay wax naan ah ci bi lii su defee enquête rek dana la si biir yéen a. faral di nekk yow ko sànq rek. ci àll bi zaman la nekk kenn ku ci nekk daal. bu fekkee ne yaa sa bopp. yaa sa bakkan xam ne yow kat jullit nga. nga war a am loo xamante ni moom la wut am loo xamante ni moom la jomb. ba bu ñuy julli ñeneen ñoo xamante ni saa ñu nekk ñu ngi ci naan. bu fekkee da ngaa gën a xale bu ndaw. yow gëntoo te appartement bu nekk nga nga ne tey loo bëgg a faj faj ko te ñoom gis ñu bëri ko boo xam ne ñu koy def sans rek di leen santaat bu baax di leen gërëm di leen xamante ni mooy baax Sénégal di leen defal sant rek Sénégal yàgg na taxaw ci di génne dina bari incha allah rabbi xam naa tamit invité yi tamit kenn ku nekk rek war na si nga xamante ne dañuy ñëw fii ci Sénégal incha allah sant bu baax a baax lépp tey lépp tey moom ngeen baaxee moom madame Tall ak am na jàmm ñu ñëpp di leen jaar di sarrafa kanta da kuma kwanwa ne da kuma te doo tudd euh, li xam ne mooy Jakarta yi moom da nga ci wax xanaa. waaw <laughs> sànq rek xale yi naam. danaa ci sawar lool pour wax tàggoo waale mm-hmm. ndax tey ci suba rek maa ngi ci benn émission ak sama groupe WhatsApp boo xam ne. Mm-hmm. ñun donga yi tarbe mm-hmm. yi. ndax dañoo am benn groupe boo xam ne vraiment. li wax naan réseaux sociaux yi. yàq gi waaye ñun. dinañ ci dolli suñuy pas-pas waaw ndax wax nañ ko sànq mhm. ndax mënees na cee defaroo mënees na cee yàqu mhm. ndax tey ni ma déggee information bi mu wàcc mhm. Assane Gueye bu RFM am benn waxtaan bu mu ci def dama ko déglu ndax jakarta ñaari jakarta yi dama ni benn oh, jakarta jàpp na bi ñuy dawal ndax bi ñuy dawal gis nga ko li muy def ci jigéen même xale yi koy war tamit gis bi ñuy am mm. waaw buñ ko waree day mel ne duñ ko def càgre de la ko mënul a mm. mm. nga ko garder yow muy jarna loo xam na càgg bi. ci lii mm. boo xam ne. kon nag ñi ngi wax nit ñi très rapidement. Mm. ñu bàyyi loolu. sinon liste d'attente ba nekk hôpital muy wàllu jàngoro roñoo jooju day gën a yéeg rek waaw te dañ ci nag def ay sensibilisation kon nag bañ déggee loolu ñun dañoo tiit mm. ndax xam nañ ni loolu bokk na ci li koy dolli mm. Mm. waaw loolu daal moom nañ ko bàyyi te xam ne doon lu gën ci wàllu santé kon nag di sant di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi te di ñaanal bu baax kilifa yi ñaanal suñu ay waajur di ñaanal tamit mbokk yi leen wax ne nag taaru Sénégal moom mii nii. Mm-hmm. waaw ndax. Euh, waaw di bu baax na kër gi. Mm-hmm. ndax kër gi moom suñu kër la. Mm-hmm. ndax moom vraiment tamit euh, liggéey bi am na solo macha allah. di sant tamit soxna Mbacke soxna. la ñu ngi leen di sant sëñ Mahmadan Tall. Seexuna Baye Sall. waaw El na solo. Sénégal lañ koy defar. waaw te ñu ngi ci biir Sénégal. Uh-huh. te buñ ko defee tamit mën nañ ne Serigne Touba lañ koy defar fa mhm. ndax sëñ Tuubaa mooy Sénégal ah. waaw ndax lam doon liggéey lépp ngeen mhm. xam jamee alwara mhm. kon àdduna wërngal këpp kon bu ñuy wax rek di ko gën a eh, kii ci Serigne Touba rek Serigne Touba day Sénégal kon loolu la kon nag na ñëpp rek bàyyi xel émission bi te xam ne bu am solo la ñu ngi koy sant baax di ko gërëm eh, ci eh, ñëwum muy Serigne Assane Thiam yaakaar naa ne comme li mu doon wax rek fi la ñuy muy Sénégal toll na foo xam ne comme ji yàqu na mais itam ku ci nekk sa wërsëg suñu borom moo ko yor yàlla rek moom man moom moo a dara doomu aadama bi du keneen yàlla rek moom a mooy dind mooy rey mooy dundal mooy def leneen ku jàpp ne nag wërsëgu sa wërsëg doomu aadama moo ko yor wala nangam ak naam mën na yàlla nag mën na ko jaarale ci doomu aadama mais yàlla rek mooy séddale te fii yàlla rek moo fi nekk nit di nga ko xeex ci dara wala di ko yàq lu ñaaw ci dara alors que fekk ne loola nga koy xasee ka waxee lu ñaaw am lu ko donc nañu rafetaat nekk yi nañu xoolaat bu baax ni ñuy nekkee nañu rafetalaat xool yi parce que am réew mënut a baax te jikko yi baaxul mm-hmm. donc loolu nag xam naa ne fii laay wàccee sama kàddu euh, di leen wax ne nag taaru Sénégal mi ngi nii jotaay la boo xam ne lépp loo xam ne day taaral Sénégal moom lañ ci waxtaanee Sénégal yàgg naa taaru comme ni ñu koy waxee mbégte nag la ñu am lool vraiment bokk ak yéen jotaay bi ak soxna associé la euh, Serigne Mahmadan moom nga xam ne mooy tëj jotaay bi ci kanam soxna Maguette Mbacke di nga ñëwaat yow tamit euh, ci jotaay bi nga bokk Serigne Assane kontaan nañu bu baax a baax asu kontaan nañu bu baax a baax Serigne Saliou moo nekkoon ci caméra bi Serigne Cheikh na moom itam ci caméra bi montage bi xali ñaar da ciy jàpp sonn ci lool soxna Awa Ndiaye jigéen jàmbaar ñu ngi koy sant bu baax di ko yàlla nañu yàlla boo ñi euh, ñu bëgg waaye tamit yàlla nañu yàlla boo li gën ci ñun yaakaar naa loolu moo jar a ndax nit mën naa xëy tout temps di ñaan loo xam ne gënu ci moom donc yàlla nañu yàlla defal tawfeex ba nga xam ne euh, lépp loo xam ne rek song nañu ko mën koo daan kon euh, foofu la ñuy wàccee suñu kàddu ci taaru Sénégal di leen jox di daje incha allah ci yeneen jotaay how to finish